waa Ndior. waaw. mais yéen yéen yéen ñu confiné woon foofu noonu ci kër gi yéen ñëpp lañ bàyyi. ñëpp lañu bàyyi soixante personnes kay. ñaata personnes. soixante. soixante. waaw kenn amu ko si. kenn amu ko si ay soxna ñu yàq liggéey nit ñi rek. mais yéen fan lañ yóbbu woon. waa ñu yóbboon Dakar. hôtel Novotel. waaw. kon yéen noosoon ngeen de. ñu ngi koy noosoon ngeen de moom nga bëgg moon sax. ah. moo tax ñëw. xaaral bi dëkk bi tàng tàng jër. xaaral ma Pape la boole yow kay yaa ngi woon àjjana kon waaw ah, ana boole. waaw Ndiawar lu ah. waaw nice waaye moom nice moom macha allah. ah nga kon. waaye wér fan bàyyi feebar mbay wér de gaaw a ah, wér. Ndiawar man dama ragal. yàlla tere waaye man nekk hôtel bay kon lex yi génn quoi. lé dégg nga gars yi dama jël ma ne waru ma ñëw ma bàyyi ba kóor passé loolu laa leen wax. muy ma noo doy na doy na leen am doy na fekk déggal nee na bëgguloon dem. billaay xola ba ana ana ana ana sa waa soixante personnes ñooñu ñëpp génn nañ ñëpp ñibbi na. ñëpp ñëpp ñëpp génn nañ dara dara jotu si kenn gars yi yéen tapale rek. waaw léegi laa billaay loolu laa koy wax léegi. voilà day yàq liggéey bi ñu jàppale xoolal kër gi. Eh, xoolal xaaral ma jox la ko mboq li kii gëm kii man xaw ma man am. jox ma ko. alors Dior. billaay xoolal wóor na yàlla ñun xoolal. sant kenn kenn la dara jarul kenn. saraxule bi sax xoolal. Eh? saraxule bi sax dara jarul saraxule bi ñëw na sax dara jarul ko. Ah. bilaay ñun saa yi yàq liggéey bi yow gars yi ñun suñu sama liggéey rek ñu ngi politique. mais lu tax ñu tëj kër gi nii jël leen yéen yóbbu leen hôtel Novotel ah bàyyiwuñ leen ci kër gi ñu jël leen yóbbu leen hôtel Novotel nguur gi di si fay xaalis bu bëri par jour. ba xoolal te dee naa waa ji nee na xoolal journée bi waa ji nee na journée rek cent mille franc la hôtel boobu loolu la ma wax te imagine la cent personnes. ah hôtel ñun cent mille fois soixante ñaata la. xoolal. kon chaque jour six millions. chaque jour six millions imagine la te ñun xoolal am nañu parce que vingt trois jours te seen lekk seen naan bokk si ak. Eh, waaw loo loo bëgg da ngay woote dina la crédit loo bëgg dina la ko jox loo bëgg moom da ngay am moom. Ah. ay ay néegi na Sall wër na yàlla loo bëgg da nga koy am moom macha allah foofu moom. te fa moom rëccu sax lañ ko doon demee commencé am métti woon na mais sax si ñu wéetoon. bàyyi li nga wax bàyyi. bari man ngay waay bu démb doon tey man ngay man ngay nee naa damay wëraat ba ñu yóbbu ma rek damay wër. bàyyi li ngay wax dégg nga. <laughs> yaa ngi <laughs> koy kër kër kër ko am yow yow kay yow yaa ma xañ yow yaa ma xañ bànneex bi yow mënoon nga wax sama benn gaañ buy ñëw si salle de jeu bi. ki ki may liggéey si salle de jeu bi moom. non non non dama bëgg sa activité yi yàqu moo tax xam rek. waaye jaww ji bul ma wax waaye sa activité yi yàqu waaye ah yow mënoon nga ne gaañ sama gaañ bu nekk si salle de jeu bi salle de jeu bi ñun ñaar lañ. dama ne xanaa wala ba pare booy ala ay booy ne fa booy Medina yi ne fa booy gerte yi gerte si booy naaj booy nen man kay arrêté moom dafa neex si ñun. bàyyi li nga yow. ay booy Medina yi manifeste booy. waaw. loolu ñoo bokk affaire bi ñu nekkoon ñoom. ah. léegi dañuy ñëw naaj guddi gi gars yi dañuy gérer naaj kay. bàyyi ñu ne waruñu bàyyi foofu rek. day ñëw sa chambre. ay gel yu mool du ay day ko non. non ñun tey gars yi affaire moom dawoon na bay neex gars yi yàq affaire bi. waaye nag may nax rek. barki yàlla billaay wallaay booy boo ñëwee xam ne man ñun changé nañ ma dama ñëw gars yi ne ma pour Europe laa ne ma la ne ma Europe de. ne ma Europe de. te <laughs> ginnaaw da nga am yaram da nga jëlee lii ma leen waaye ne woon fenn. kon yow inci di inci di ku la gis xam ni changé nga de. billaay suñuy xala suñuy reef lañu jàpp suñuy reef. yow daal yow daal yow yaa ko xañ yow moom wax dëgg yàlla. bu doon mere non non non bëggoon naa la woo mais dama xam ma waxee nag ñi lay sa waa kër la ñuy sonal. waaye yow mënoon nga ma woo rek Ndior ah dem hôtel ga damaa mos a dem nga hôtel. billaay wallaay dama dem boo demee xoolal piscine dañuy dem si sangu si piscine sax imaam su feebar nooy sangoo piscine. non. lépp ñu vidéo yi sama sa WhatsApp wala nii bilaay da nga xam ne yow tey ñun fa jàmm salaam na ñoom ordinateur lépp dem si fii lépp waaw dugalal ma ko WhatsApp bi dugalal ma WhatsApp bi dugal photo yi yëpp après naa dugal si kanam merci maa ngi en ligne waaw ok am problème waaw ok ñëw fa naa dugal lépp ok merci waay